xam nga euh, en 2004. lañ transposé la loi sur la bancarisation au Sénégal en droit interne. 2004 lañ ko adopté pour bancarisation mais imaginez 2004 ba 2024 20 ans après nous sommes à 20,53 pour cent de taux de bancarisation très faible. très faible ce qui veut dire que banques yi dañoo war a changer seeni pratique seeni comportement. vis-à-vis des usagers nit ñi da ngay gis ku ubbi woon banque commencé def ay opération jékki-jékki tëj compte bancaire bi di jël jël jël jël euh, suufu matlaam def ko banque di denc. mais banque ay privé lañu et la responsabilité de l'État dans tout ça. Mm-hmm. mais c'est ça c'est justement ça c'est-à-dire que c'est des banques privées en majorité parce que boo xoolee bëri nañu ah, il y a 34 banques au Sénégal 34 29 banques 4 établissements financiers à caractère bancaire et une banque digitale. est-ce que donc 34 banque moo am pour un pays comme le Sénégal. Mhm. mais 34 banques 20 virgule 53 pour cent de taux de bancarisation. moo lay wax ni y' a mhm. problème. Mhm. y' a problème léegi nag problème bi fan la situé mooy pratique bancaire yi ñun nous ne sommes pas contre la banque. parce que banque dafa baax ci réew banque day réguler économie banque moom mooy financer économie banque moom mooy créer un équilibre moom mooy mooy mooy effacer les déséquilibres et les disparités sociales ki am jël xaalisam dugal ko banque. banque jël ko jox ko ki amul. Mhm. ki amul moom liggéey banque bi amal boppam banque bi mën a jël ci liñ ko fay ak intérêt am compal créer de la valeur ajoutée créer des emplois loolu dafa baax ci réew réew bu la sut bu la raw dalaa gën a baax ay banque mais ces banques étrangères qui sont là. Mhm. ne financent pas le développement na financent pas l'économie elles sont là pour. engranger de la l'argent jël xaalis bi dem tabaxee ko. waaw mais est-ce que c'est pas à l'État de leur imposer. benn benn benn benn taxawaay boo xam ne moom mooy tax ba sénégalais yi mën ci gis seen ba parce que sénégalais itam à la limite ku nekk peut-être li li nga fi fekk rek loolu nga mën a ci loolu nga mën a tënku mais c'est à l'État de mettre les les les yoo xam ne moom mooy permettre lii nii ñu mën ci yegg. imposer ko effectivement c'est possible ñun wax nañ ko on a fait même des propositions xam nga ñun dañuy dégg ñuy dénoncer ñuy dénoncer c'est vrai dañuy dénoncer. dañuy alerter mais aussi dañuy def ay proposition xam nga tey la loi sur la mobilité bancaire mooy boo bëggee changer banque xam nga changer banque concurrence pour que banque yi nekk en concurrence il faut que clients bàyyi banque bi di dem bële ñuy xëccoo ay clients mm. loolu ko xëccoo concurrence bu amee prix day gën a wàññeeku effectivement concurrence dafa amut en réalité mm. moo tax les banques euh, sont dans une entente illicite nga gis prix yi wàññeekuwul waaye day gën a yokk c'est parce que tout simplement concurrence amul pour ñu installer concurrence nag faut des lois il faut la loi sur la mobilité bancaire tey ku bëgg changer banque dem beneen banque. gis nga lu ñu leen fayloo problème tey pour changer banque. gis nga lu ñu leen fayloo donc client bi mënatul changer banque donc c'est c'est des mesures anticoncurrentielles. Mm-hmm. de sorte que banque yi am dañuy gën a am client yi dafa mën a nekk te duñu mën a génn. parce que boo bëggee génn ci banque bi ni nga fay presque deux cent mille oh, attestation d'engagement attestation de non engagement des frais des pénalités de remboursement par anticipation daañu la dagg dagg dagg ba yow dootoo desee ci dara dañ lay ruiner en réalité booy génn mm-hmm. loolu nag loi moo loi moo ko mën a faj te loi boobu dafa war a jóge ci état bi la loi sur la mobilité bancaire avec une commission. mais mais am ngeen ci yaakaar parce que am nañu gouvernement bu bees quand même. oui am nañ ci yaakaar parce que defal nañ bon ñu fi jógee moom defal nañ leen proposition bi nee nañ leen loi bi dafa simple xam nga nu muy demee tey ba bëgg na génn ci banque am. Mhm. du dem sax seeti banque day dem directement ci banque bu mu bëgg a dem en sept jours une semaine maximum dem na yoonam. c'est-à-dire que bu demee day inscrire ru ibbil ko compte ñu ne ko ñaata nga am fële mu wax banque ñaari banque yi après ñooy communiquer. Mhm. ba lancé appel banque bi ne ko diw ñëw na fii dafa bëgg a génne sa banque. ñaata la fa am transaction bi rapidement mobilité bi nga dem sa banque. sa gestionnaire bu ko wóoree ni yow mi mu jàkkaarloo mën nga dem te du ko yëg. mën na perte client te du ko yëg parce que ñoom c'est des points client boo perte rek mhm. <laughs> da ngay wàññi say points day gën a wàññeeku mu wóor ko dana la gën a toppatoo dana fexe ba yow boo ñëwee dana la traiter avec respect. dana fexe ba cap bi. ces gestionnaires là li ñuy wax li ñuy waxtaan ak moom sax pour monter bu lay waxtaan ak yow pour monter le dossier de près mu wóor ko ni bu la proposé wul deful offre bu baax. dem nga sa yoon dana la gën a respecté. li ñuy wax ci santé bi. accueil bi ak yooyu gestionnaire yi moo nekk fële aussi ils ont parfois des comportements